juróom-ñaari milliards lii mooy koppar yi nga xam ne délégation général à l'entrepreneuriat rapide moom la daal di génne fas yéene jàppale ñi nga xam ne ñooy artisans yi. maanaam DER e dafa jagleel 2021 euh, année artisanat pour jàppale tailleurs yi cordonniers yi mécaniciens yi menuisiers yi corps de métier yëpp maanaam pour dugal lu tollu 7 milliards. ren pour jàppale sukkali artisanat réewum Sénégal. koppar yooyu dina jàppale secteur bi nga xam ne ñu bëri ñoo fay liggéey te it muy dugal koom-koom ju bari ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci jëwrin ji nga xam ne moom lañu ko dénk. artisanat bi nga xamante ne tey ci Sénégal mooy secteur bi ëpp li muy am ci nit yoo xam ne dañ ciy liggéey muy secteur boo xam ne tamit li muy indi ci koom ci ëpp ci li ñi secteurs yi ëpp li ñuy indi koom ci Sénégal artisanat tamit ci la bokk. soppi artisanat xar kanamam ba artisanat nekk roykaay te loolu moom mooy li nga xamante ne ci incha allah moom ak ñun mooy li nga xam ne moom la ñu def financement bi nag ndorteel la rek wante DER daal dinay defar a plan boo xam ni mu ngi ko duppee moderne art 2021 délégué général bi nag di ñëw ak ñun ci lan moo ëmb projet boobu lee d'ici nañu lance benn programme bu bees bu ñuy wax moderne art maanaam yeesalaat suñu artisanat fii ak deux trois ans yi di ñëw ñu dugal euh, quinze milliards cinq milliards par an pour jàppale artisans lii di équipement individuel ak collectif lii di financement lii de accompagnement renforcement de capacité formation ak euh, hygiène. kon déggoo googu nag dox ci diggante waa DER ak ministère bi nga xam ne moom lañu dénk wàllu artisanat ak transformation di secteur informel ña ngi ko xaatim nag ca sphère ministérielle bu Diamniadio teewoon ca nag ay artisans yu bëri ñoom ñi la sax nag ñu rafetlu déggoo googu nga xam ne dox na ci ñaari kuréel yi.